ay xalaat gën a saytuwaat doxalinu élection yi xool itam ana ci yan anam la ñuy demee ci yi nga xam ne ñooy ñëw ci at yu ñu dëgmal yooyee la ñuy waxtaanee ci ndaje bile jeexital bi nag muy jàngat bu xóot ci li ñeel élection yi ñu weesu. Euh, la presse notamment les professionnels des médias. presse bi joué na rôle bu am solo ci processus électoral bi li koy firndeel mu di kenn weddiwul résultat yi. kon nag euh, jot na ngir ñu càmbar ko xool li ci manqué rek euh, ñu daal di koy euh, jubanti. et voir les recommandations qui pourraient être faites dans le cadre des réformes annoncées par le chef de l'État. ñii di waa CORED jàpp ni professionalisme ak xeex ngir ñoŋal démocratie moom nemmeeku nañ ko ci journaliste yi. dañuy rafetlu liggéey bi nga xam ne taskatu xibaar def nañ ko parce que boo gisee si guuta bi ñu duggoon bu doon si yeneen réewu Afrique yi boo moytuwul taskatu xibaar yi dañuy yokk xar mi karaw ba boo moytul sama mën indi ay euh, jàmmarloo yu taratar ci réew mi vraiment taxawaa nañ euh, taxaw bu mot sëkk seen place euh, xam lañu doon jouer seen rôle donte sax am na ay gàkk-gàkk yi ñu relever ci yenn taskatu xibaar yi te ñu war ko gën a moytandiku yenn saa yi kuy liggéey mooy def si yenn saa ay njuumte loolu correct du ci jóg dañuy saa ñu gisee lu xaw a dëng Euh, dañuy woo nit ñi waxtaan ak ñoom bala ñu génn communiqué bu ko jaree. faw nag ñun Ratatouille ñu xam ne buñ ñu amee lu ni mel dañ ko war a sàmm bu baax a baax nuñ koy sàmmee mooy fexe ba professionnalisme yi ñu xaat si ñun euh, kenn bañ ñoo jam naa ni ku ñëw yóbbaale ñu dañ koy bañ. professionnelu média yi nag war a gën a dëgëral seen taxawaay surtout nag ci li jëm ci xeex ngir gën a ñoŋal ak yi démocratique yi le nga xam ne ñu ngi gën di sooxe. ci biir réew mi suñu sukkandiku ci rapport bi nga xam ne ñii di waa Reporters sans frontières mujj nañ ko génne di xam ne ne Sénégal dafa dellu si ginnaaw bu baax ci li nga xam ne moo jëm ci aar taskatu xibaar yi ci at yi ñu weesu.